asalaamaaleykum sunu mbokki internet nga xam ne yéen a ngi ànd ñun ci sbt média point com amaan nañu mbégte ak kontaan ñëwaat seen émission seeti mbër seet si benn xale boo xam ne bi mu ñëwee ci làmb yàgg na yàggut Boy Baldé lay wuyoo Boy Baldé ñu ngi leen nuyu waaw ah, ngi leen fay waaw ginnaaw mu ñu sant yàlla julli seen di sant suñu ñaari waajur ba xam di sant waa Pikine xam di sant waa Pikine di sant waa Casamance yëpp xam di sant waa Sikilo di sant waa Guinée Bissau Pata xam sant daal di sant sama kër maam yi kër Fodé Douce sama kër maam yi maa ngi leen sant di sant bu baax di sant sama nijaay bu baax fils de Fodé koo day jàpp samay combat yëpp presque mooy mooy sama baay fii nii maa ngi koy ñaanal gudd fan barki Seydina Mohamed la déggee nga nuyoo nuyu Kolda nuyu kër Fodé Douce Ba nuyu mel ni kon am nga bàyyi mbër wala maami mbër man Fodé mooy sama maam moo jur sama yaay mooy sama waaw mooy mooy sama maam waaw Fodé ñëpp xam nañ loolu lu mu def champion bu mag la. Fodé Doussouba borom man heure bi laa dëkkal man ku ma daan rek damay toog sa kaw. waaw sama maam fii mbër boo gis wuy ma ñu ba pare mu eh, ñu toog sa kaw loolu sama maam moo ko génnoon borom photo maam maay tudd Boy Baldé waaw. Eh, Boy Baldé ginnaaw bi nga xam ne am nga maamu mbër eh, kañ nga commencé bëre Mbapat. Mbapat man presque fii moom bëree ma fi Mbapat lu bëri man moom xam nga man fii moom gars yi mënuñ xam fii sama bëri ne man soo bëggoon xam sama bëri degré degré soo duggoon sama Kolda yóbbu yor naa foo ay gañ foo yi ba tournoi yu bëri noonu fii moom su ma juumul trois combats xam nga waaw trois combats laa bëri fi mbapat xam nga après sama nijaay fii su ma nee na wuy ma heure jot na parce que bëri nga fee mbapat ba gars yi xam la garaaw dogal si arène bi waaw. kon daal su la déggee mooy Dakar fii moom ràññewul na ci mbapat baax baax est-ce que kon nekkul loo moo tax amateur yu a bëri. waaw waaw waaw gars yi loolu la ñu sama dëgg man gële bu ne mu mu ne naa ko xoolal fii champion yi fii Siteu combien de gële la mën la dëgër mu ni combien de gële la mën ñun Jules Baldé mooy jàngal bëri barki Seydina Muhammad billaahi wallaahi Jules Baldé mooy jàngal bëri tey de soo demoon équipe ba nga xam ne ñun ñun sax waaw lu si kanam daara wul bët la nañ ne wi ma gars yi nañ xool bu baax rek waaw incha allah yàlla baax na. ay ay champion yoo xam ne bëri ngeen mbapat te te ñu ngi si arène bi ku si mel ne kan non maanaam euh, su ma juumul euh, maa daan ardo ardo ardo parcelle xam nga golf la dëgg xam ardo ardo benn waaw ardo maa champion la waa maa daan mbapat waaw ak kii nii kii moom ma daan euh, mbapat kii nu nu mu doola de fara ko du ba léegi duggagul am benn séeréer bu nekk si marché bi tamit maa daan waaye moom tamit bi moom xam nga bëriwul ba léegi en tout cas man moom fee gën a toj daal mhm. dégg mooy Kolda ay côté Casamance daal côté boobu nga gën a reeñ bëri naa fii ba Ziguinchor dëkk yi foofu noonu dëkk àll Kolda yi foofu noonu barki séeri naa ma damaa rajo foofu noonu foo soo duggee Kolda soo nee Boy Baldé la ñu ne xam nañ ko barki Alxuraan Karim billaay wallaay wa man am na 4 combats 4 victoire. kañ nga ñëw ci arène bi. Euh, su waaw euh, bàyyi ma ñëw les deux laa bëri sama premier combat ma ñëw les deux mooy sama premier combat. sa premier combat yow ak kan. Euh, man ak forcé bu Lamsar man ak forcé bu Lamsar waaw. tey bi arbitre bi sifflé nga xam ne boobu sa premier combat arène nga xam ne maa bëre simple nga daan def bii nag bëre dóor la moom maanaam bëre dóor euh, bi arbitre bi xoolee sa adversaire xool la moment boobu noonu supporter yi génn ñëpp génn ñëpp nekk ci kaw ñëpp taxaw di xaar Boy Baldé moment boobu lan lan nga yëg. boobu lu ma yëg xanaa ah maanaam xam nga supporter ñu ngi nii taxaw xam nga ñu ngi may xool lan lay def fulla jom xam nga man moom sa xam nga maanaam fulla jom la la laa doon demee man kii moom arbitre sifflé damay attaqué si kawam. jàpp daan ko waaw parce que arbitre daa sifflé ba pare ma daw jàppante ak moom ba pare xam nga mu dóor ma ba mu door na ma dóori métti sax combat bu daa métti woon ndax maa ma daal di jàpp ñaari ngeen muy daal wuy ma du eh, kii dugal ko ci xabal ba pare mu daal di génn saako yi ma xam ne kii carrément bëggul bëri bi parce que ñun sax lay wër ñun gars ko kii eh, maam jàppante la man mais xeex mënu ko. waaw ok parce que ñun ñun Jules Baldé chaque la ñu ñu ne tey tey soo indee kii nii xeex bëggul xeex fekkoo si loolu noonu su indee bëri nga fekkoo si loolu noonu loolu moo tax ma ne kii buggul xeex bàyyi bàyyi ma fekk eh, wuy ma kii si xeex bi après kii deuxième round ñu daal ñu arbitre sifflé mu attaqué ko xam nga ñu daw dóorante après mu door ko mu daanu sam permet mu daanu kaaw waaw premier combat mu daanu waaw forte bu lamsaar waaw muy sa premier combat première victoire kaaw euh, am ñu bëri ñu waxoon ne euh, Boy Baldé mun te xeex après bi nga jóge fa si deuxième combat sama deuxième combat Zibi la boo jëm ndar bi ndar ndar laa bëreem grand combat man ak seen droit bi foofu na champion. arbitre daa sifflé arbitre daa sifflé barki Seydina Mohamed laale billaay walla jël bu arbitre daa sifflé ma wàcc ñu dóorante gauche droite fu muy sandee loxo bi foofu laa wàcc jël tànk bi mel ni ku koy dëj ba pare bëtt ko war ko nombu nee na day mbon ma suruxal bopp bi barki Alxuraan Karim jour euh, kii Zibi boo jëm dar bi maa bëreem grand combat Boy Baldé yow sa deuxième combat grand combat la yàlla dogal moo lan moo tax Boy Baldé yow dafa dara ay quatre combats ba pare foo jógee ñu Pikine jóg Boy Baldé Boy Baldé moom man moom presque man ñëpp respect laa lañ jox. fu ma tuddee salaamaaleykum am na ñoo bi fii sax am na ñoo xam ne wuy ma dama leen a nuyu duñ ma faale man du ma yaa ngi ko mën a waaye yàlla baax na xam dem na ba si biir ñoom ñëwaat si man man man réew ma réew ma barki soo ma soo ma gisee nii tey de mun naa romb xam nga ak ñi ma rus leen bu gisee eh, nuyu waaye waaye waaye man sama xol barki Seydina bi dara neew foofu noonu am na ñoo xam ne wuy ma duñu comprendre man tey tey wuy ma doom Pikine la damaa bëgg gars yi parce que xam nga xam nga kon mbëri lu ñu am fii man am naa wàllu noonu damaa bëgg gars yi yëpp jàppale ma barki Seydina sama combat Fils de Fouta rek moom mooy jàppale mooy dindi xaalisam barki Alxuraan gar financé ma ak sama nijaay Papa Ngagne Diagne eh, kii sama patron Papa Ngagne ak jabaram Fatou maa ngi leen di sant bu baax barki Seydina Mohamed dañuy jàpp sama ko samay combat Fils de Fodé moom comme moom maa ngi koy ñaanal yàlla barki Seydina ñëw ci cant yi gërëm mais sa sa deuxième combat nga dem bëree grand combat ginnaaw bi nga jógee si grand combat sa troisième combat yow kan la sama troisième combat man kii euh, xam kii Alioune Seye Alioune Seye waa deux bu waalo junior Alioune xam nga junior amu deux waaw koo tamit ñu xam nga arbitre daa sifflé xam nga kooku moom barki naa moom arbitre daa sifflé ba pare man lu ma contact lu ma ko entraîné si combat bu mosuma ko entraîné benn combat weeru koor a commencé entraîné Jules Baldé di ma contact lu combat bu jàng moo seexee sax boxe ma def ma dara contact gi laa doon def arbitre daa sifflé man ak gars yi euh, ñu daw ñu daw ñu ñu kii nii ñu dóorante mu dóor ma ba pare ma rëpp trois appuis xam nga foofu entraînement moo ma tey foofu noonu su ma amuloon entraînement dama noo kii quatre appuis ma ma ma daal di daw kii daw takku ko. moo xam ne kii maa ko ëpp doole contact man lu mën a contact xaaj xaajaat bi contact boobu loolu moo tax damañu jàpp ne ma xam ne kii maa ëpp doole contact ma daal ko tegal siège ñu ñu ànd ma toog si kawam boobu mooy sa euh, ñu gis ne euh, dañ fee bàyyi booy jum kenn nangu koo jël booy booy booy bàlle ma jox nañ ma jox booy jum lan moo tax nga defoon soit sa diggante booy jum non déggoon naan champion la xam nga booy jum nii xam nga ñu ne champion la mooy dul kii nii affaire yooyu man non non non may moytu man xale laa si booy jum am nga parce que moom moom dañ gaa njëkkoon envoyé sama photo ñu envoyé ko sama photo xam nga moom tamit photo am ñu envoyé ma ñu ñu woon ma ko man la kon man garaawul moom par exemple moom moo sama ménage Abdou Baaxu maa ngi koy xam maa ngi koy nuyu ma ne ma ne ko non père garaawul jëlee ma ne non xam nga kii booy booy mbër la de daa garaaw ma amul problème léegi moom nee na photo bi arrangé wu ko mu daal di eh, jóge jóge jam ñaayo woo yaa daal mu ne mu ne xam nga non moom ma la bëgg gis yaa daal foo fekk ma fekk fu may liggéeyee mu ne ah mbër bi nee na yow la bëggee ma ne amu problème man amu problème boobu noonu ma moom naturellement soo gisee combat bi ma soo moom moom lu mu foogoon ak lu mu gis bokkul barki Seydina man dama la gisee la d'accord na mais bi mu ñëwee ci stade bi mu gisoon ak Boy Baldé bi mu gis ci biir combat bi bokkul. non maanaam xam nga gars yi ñoo ko trompé am na sama benn gaayan bu mu bàyyoon foofu noonu léegi mu ma ah, am na sama benn gaayan bu mu bàyyi foofu noonu ma ne boo bàyyi mu maay dem léegi koo foofu noonu benn gaayanam xam nga yàgg xelam bi mu ne ah, koy faas mu jàll xam nga dañ ma xam man man tey de mun naa sol yëre yi nga xamale waaye suñ simbeekoo ba taxaw si digg bi da nga may jox respect parce que ragalu ma la man xam nga sama morom góor du ma la ragal barki Alxuraan Karim soo dóoree gars yi nee na de non ma man du ma sekki man man yaa ngi ne fi ne nii yow yow keroog moo ko stade tolloo dañuy wax man dañuy uy man dama entraînement rek laay def barke Alxuraan karim sa combat booy Balde eh, eh, sa combat ak booy jum la moo tax combat bi ba pare xeex bi seen xeexu xeex bi tegu ngeen ko coon xeexu xeexu mbedd ngeen xeex keroog sax jàpp naa làmb ji dóor mu daan mën na ci am mm-hmm. maanaam barki alxuraan soo gisee combat bi yàgg que man damaa dugg si combat esar eh, bi ñu ne bàyyi ki ngay bëri wu ma rasu nga gaay li ñoo ñu ne kii rasu moom nga wàññi ko man bëggoon naa si premier naa ñaan ngeen soo gisee ma buggaa sigil ah dama kaa bëggoon daanee jaxabal barki alxuraan ka wuy waa entraînement soo ko ma bi yàgg sax moom moo tax combat bi yàgg sax barki alquran karim moo tax combat bi yàgg sax billaay walaay waaye baax na rek ñun moom ñuy suñu yurko di entraîné xam nga ñuy daan toog di xaar rek yàlla baax na. moo ëpp kuyum door boo xoolee. boo xoolee moom moo ëpp kuyum dóor résistance bi lan la. non maanaam secret bi moom barki Seydina am entraînement rek Jules Baldé moom billaay walaay yeneen saa yi buy ma dañ buy ma dañuy entraîné bay jooy nii barki Seydina Mohamed ñu ngi koy sant di ko gërëm billaay walaay entraînement boobu lu ma dafa maa teg coono ma coono yi métti billaahi wallaahi wa taala. waaw yow ak ñeneen ko doon préparé yow ak ñeneen doon contact. ak ñoom xam nga sama xam nga sama doom ni rek presque ak ñoom Jacob xam nga ak ñoom Pokola ñoom Babacar xam nga ñoom Boysil ñoom Ousseynou Waane xam nga xam nga ñoom Sarle sama entraîneur Fallou ñoom Zil Balla yëpp xam nga gars yi ñu ñoo waaw ñu ñoo doon préparé combat bi. Uh-huh. ama contact gu ngeen ci combat bi. non ama waaw ama xam nga heure bi a xam heure bi amul jot moom moom amul jot. ñun moom xam nga ñu ngi koy ñaanal yàlla mu indi roi des arènes bi Pikine incha ñun moom xam nga ñun comprendre nañ ko parce que woo na ma conseillé na ma affaire yooyu noonu waaye mhm. lan la. non ñun ñaar moom xam nga foo kaf moom moom man koy ñaanal yàlla lu ma yéene sama bopp barki seen ñoom waa AICRI bi xam nañ ko man lu ma yéene sama bopp loolu laa leen yéene barki seen dina doon roi des arènes si wuy ma si kattanu yàlla incha dina doon roi des arènes maa koy ñaanal loolu noonu billaay ban combat nekk roi de serre. yàlla su defee wuy ma ah parce que maa ngi dégg combat moom Modou Lo rumeur affaire yooyu noonu na taxaw rek Modou Lo su wuy ma su wuy boppam na jël na mu xool booy daa pare parce que daa pare. nga xam ne champion roi des arènes daan amul seen ah daan mbëri fi nekk yëpp mu jeexal leen. loolu lu dara parce que Seydina am loolu dara ah na jël seetlu mu ndaw rek mu xool. <laughs> na jël seetlu bu ndaw ma xool. bu kay léegi yëkk la. <laughs> waaw <laughs> kon baax na yàlla baax na. Hmm, hmm. seen émission seetu mbër la ngeen ànd see ki nga xam ne moom moo di sbtmedia point com tey ñu seet si Boy Baldé nekk sëtu mbër nekk doomi mbër ndax dañuy wax ne doomi mbër jàngal bëre yàgg-yàgg des na la ñam waaye la ca maam sëtu mu mel ni kon Fodé Douze Ba maanaam euh, amaan na ci làmb ji ndax euh, Boy Baldé photo waaw noonu la demee sax barki maanaam coronavirus bi lu bëri bu dul loolu su mu amee combat damay xar koñ bi xoolal heure bi mbooloo bu moo bi mel ni xam nga mel ni Ama Baldé mooy génn bi wala Balla Gaye wala Modou Lo Ah, loolu sant yàlla rek waa incha allah lu si kanam rawul bët nañ wi ma damaa bëgg gaa yi siggi xool wi ma gars yi xool bu baax la loolu waaw loolu laa bëgg wi ma gars yi xool bu baax dañuy xam ne xam nga beneen faute eh, ma ñëw na si làmb ji amul problème yàlla baax na léegi léegi ginnaaw bi jógee ci booy Dioum euh, booy Baldé fu mu jëm xanaa léegi sax comme ñaari booy la woon Boy Dioum Boy Baldé Boy Baldé léegi grand la xanaa xam nga lan mooy problème bi xam nga lamb ji moom doo comprendre tey day su ma laajee fii mbër yi dañuy wax wuy ma ay kii xamuñu ko nangam sa affaire yooyu ne man moom tey day na dafa ndànk booy booy balde xoolal dama ne la xoolal làmb am na ñoo xam ne sa adversaire lan boo ko waxee amateur yi d'accord mais am na xam si boo toogee fi den laaj nag booy balde da ngay yeblu sa bopp rek nag non maanaam du yàgg ah, moom Abou Ndiassé moom dégg naa moom xam ah, man moom combat yu bëri maa koy seere dégg naa gaynde la kay dégg naa gaynde lool lool loolu laa bëgg. yow ku la andil avance Abou Ndiass ñëm nga ko jël. Seydina Mohamed billaay wallaay billaay barki alquran karim heure bi moo ma teree nelaw barki Seydina Mohamed laa xam naa xam naa wuy ma su seedaane lay wooy booy bi xaw ma ko man la booy Balde doomu Pikine bi seetu fóoree du subaa Balde na ma jël. booy bàll dama ne la ndax yow est-ce que ku la certifié indi la may bañ yéen da mbër ñu promoteur dem seete ko ñu dem nga naan noo xama combat bi sama staff ñoo wax lii ak ko jël ah dama nga laajte père baax man mosuma delloo avance xam nga duggoon naa seen écrit sama premier combat am na lu ma def foofu noonu ah léegi léegi léegi na moom maaya chance mu xool na moom maaya chance rek ñu ñu xool pare nga pour moom parce que naa moom xam la waaw kat combat la kat victoire la moom moo. moo la jiitu lam moo la raw ci lam. moom mu jiitu waaye waaye moom moom moom moom ma combien de kii la am moom su ma juum xaw ma cinq combats. Euh, deux vit euh, euh, victoire deux défaites la am bi daa martiné kii kii kii nu Tarbaxa ñu jog victoire bi. waaw yow soo nekkee xale da ngay nga def man barki seen Abu Ndiasse eh, kii nu mu tuddee eh, booy jum dam kaa teg lu métti arbitre daa sifflé ma xeex ak moom parce que nekk xale. moom mooy gendarme moo xam nga lan laay bañ ay nekk fii booy bi xaw ma ko affaire yi. mi ngi seetaan SBT Média Abou Diass mi ngi lay seetaan léegi wax la moom mi ngi lay seetaan. waaw pour pour mu gën nga eh, mu mu gën man la Boy Baldé Abou Diass defal ngir yàlla jëlee sama combat. barki seen jël ma may la chance rek ndax moo la jut lamb. waaw waaw su ko neexee waaw mun na mu may tamit chance. waaw mun na mu ma may chance pour pour moom moom mu xam la ko dara quatre combats la am quatre victoire man la Boy Baldé nekk écurie Falaye Baldé xam nga Lamsara ak wi ma Lamsara Pikine moo muy loolu derby la na ma jël rek combat bi neex rek Euh, benn combat spécial nga def ak benn grand combat. waaw benn spécial laa bëre ak benn waaw euh, sama combat sama premier combat bi huitième combat laa bëre sama deuxième combat bi ma bëre grand combat combat bi su jum waaw sama euh, waaw kii bi nu sama troisième combat cinquième combat sama combat bii nii sama dernier combat bi ma bëre kii avant grand combat. léegi nag may chance wuy ma may chance. léegi bu Abou Ndiassé bañee léegi foo jëmaat. su ma amee bul laal tamit moom ma gënal tamit. xoolal bul laal kenn ñi ma ko bañ na ko bul laal laal ngay laal bul laal ngay da ngay laal booy balde yu ne bul laal. Eh, booy balde borom fodo lay waxal man ma leen. bul laal moom dégg li ñuy wax bul laal laal ngay da ngay laal booy balde foo teg loolu. man maa koy laal nag man man man la booy balde maa koy laal man xam nga ah, man maanaam man damaa bëriwul ay combat loolu moo tax léegi euh, su ma la nii da koy non carrément xaw ma man sax barki seen man combat bu métti laa soxla nañ ñoon ñu reyante combat bu ba nga jëng koo xam ñëpp dañ ko fay bàyyi bañ ne ko bu laal lañ koy wax bu laal gis nga ku laal gis nga la la fay fekk loolu dara billaay wax booy booy uyu ma gars yooyu dañuy sóob rek loolu bu laal nga laal ko waaw yow xanaa déggoo li moom su ñëwee léegi-léegi ma jënd ko wuy ma suukar koor moom moom ma jox gars yi billaay wallaay parce que alquran karim est-ce que jaawale ay bu laal numéro deux nga wax yow bu lamsaar laa champion daanaan bu laal bu lamsaar laa soxla bu laal bu lamsaar wala abu njaase dama bëgg dugaat lamsaar dugaat foofu noonu waaw. lan lan lan moo si diggante waa lamsaar da nga yor seen sarax la. non non maanaam du affaire xam nga dañoo bëgg yoon bi rek loolu moo tax xam nga ñoom dañuy wuy ma ñoom gaynde lañu ñoom moom suñuy bëri seen combat du yomb loolu moo tax man moom soo doonee gaynde moom damay sawar bëri ak yow loolu laa bëgga Boy Baldé ñooñu ay ndaanaan lan de te ñoo la ñoo la ñoo la ñoo la jiitu ci làmb raw la ci làmb te ay champion la ma jiitu man booy mu ndaw laa 84 la def ma benn jugement sama normal laay demee barki alquran kan billaahi wallaahi watal booy mu ndaw laa sa sikkim bi nga naan 94 nga non xoola Boy Baldé xoola Boy Baldé xoola sa sikkim bi nga naan 94 yit sikkim du dara billaahi wallaahi watala sikkim du dara billaahi wala 94 sama normal laay demee ma nekk ma mbër yoo xam ne dañuy nekk fii di juge affaire yi di wàññi seen ade barki alquran yàlla bu mu amal victoire billaahi wala 94 laay demee billaahi wallaahi watala dama ah, normal lay demee nañ ma may chance rek man loolu laa nañ ma may chance. léegi léegi léegi bu dee bu laal bu laal bu laal moom bu fekkee ne maam nangul jël sa combat parce que boo xoolee moo la moo la gën a baax palmarès bu fekkee ne maanaam nangul bëri yow léegi foo jëma ah Giro Seydou su ñëwee baax na ñoom Giro yi. Giro tamit yow Boy Balde yaa yaa ne Abou Ndiaye ñu ne déet nga ne bul laal ñu ne déet nga ne Giro Seydou. xam nga ñooñu buy ma ñooñu may ay der lañu combat yi métti la bëri loolu moo tax mu xam mu bëgg a bëri ak ñoom am nga am nga ñoom ñoom yàlla may leen tur ga léegi nañ moom may changé rek ma bëri ak ma amaguma tur si lamuj loolu moo bëri léegi damay xeexante moom ba mu am tur si lamuj kon ñoom lu nii ñi wax ñett adversaire yi nga fi wax nii ñoom nga ñoom nga bëgg a bëri wala dafa am keneen koo bëggaat non maanaam man man moom du ma nekk fii di wax ay affaire yooyu noonu man tey de bëgg naa bëre ñoom am na ñoo xam ne tamit wi ma lamu su su ma boolee ak na ñoom xam nga tey de man xam nga ñoo xam ne tamit dañ may soxla waaw lamu tamit su ma boolee am na boo yoo xam ne moom ñu ngi lay dëkk léegi yow booy la dëkk xam nga leen waxal leen bu fekkee ne pare nga pour may leen saan ngeen bëre non xam man moom lu bëri moom man xanaa sama gars yi am combat mooy dem esan man moom uy ma toog ma télé Eh, eh, musuma toog eh, seetaan télé ba ba ba gars yi wax ma jox ma diw jox le ma booy bàll joxle ma booy la ba man aw ma sens boobu noonu sax kon gars yi. ko fi dara nag booy baal nag tëjagoo fenn. loolu la demee man non man man non man damay nangu ndogal yàlla loolu moo tax man ma ne la man defaguma fii dara. booy dañoo booy yi dañoo am dañoo am mbooloo de am bayra dañoo am mbooloo booy ba pare dañuy xeex dañuy bëre. araba sama cinquième combat nga nga ñëw filmé si koñ bi nga xool barki Seydina Mohamed stade bi stade bi maa ko moom stade bi nii maa ko moom. fii stade national bi ana dégg sama maam fii la doon defee kii nii fii moo nekkoon tool fóode fii barki Seydina Mouhamed laa lay instant bi ko moom. kon booy bàllee su ma déggee arène bi yow neexuloo ci kenn. <laughs> non non fii moom ku ñëw fii wuy ma dama lay wàccee moom waaw ñëw fii dama lay wàccee fii fii mooy àllu fóode fii fii fii moom fii moom mooy loolu moom waaw gars yi nañ ma may change mu bi moom ma bëri ñoom loolu mooy loolu mooy affaire bi waaw. maa ngi dégg booba léegi ngay wax fils de Fodé fils de Fodé ban fii de Fodé la. fils de Fodé ah waaw Fils of Fodé xam nga sama rakk yaa la xam borom baax la daal barki seen naam xam nga maa ngi koy ñaan xam nga lu ko daal si lamb ji ne xam nga jafe-jafe xam nga maanaam champion la Pikine gën daa koo bëri. ah mooy Fils de bi nga xam si nii moo moo moo ak Clinton bëree fee ki nga xam mooy professeur euh, kii nu mu euh, booy ba ba bëri na te mu te mu mën a bëri rek am xoromu lamb. Ah, Fils de Fodé anam moom léegi fa mu ne xanaa dafa bàyyi bëre. non maanaam daa voyagé woon daa voyagé woon rek xam nga voyage bu ndaw rek xam nga léegi xam nga affaire corona bi moo affaire yi bëri nañ kaa tëj yoon affaire yooyu noonu loolu moo tëri ñëw sama combat mu ngi noonu fii sax koy ñaanal yàlla xam nga koy ñaanal yàlla daal lu wimal du ko dal xam nga yàlla na moom boobu seen xam nga daa garaaw rek baax la débuté woon ndax deux combats deux victoires que boo xoolee El lu mu ëwi kenn dakkoo bëre yéen ñëpp seen émi mooy seetaan nga ay combat fils de Fodé kenn dakkoo bëre barki Serigne Mohamed. billaahi wallaahi. mais xaw ma sa papa la xaw ma sa nijaay mais bokk na ci tax mu daanoom ragali dóor doo nga de wuy ma tey de wuy xam ne ma sa loxo du jóg gis nañ fi lamb bu ne waaw yàlla baax na rek xam nga xam nga ñuy. su ma la déggee da ngaa bëgg ne euh, côté mystique dañ koo dañ koo jàpp ci ci gàllaaj waaw yaa ma gën xam la lamb tey tey am na ñoo xam ne barki seen naam suñu la soxla wuy ma luñ leen wuy ma ma luñ leen lañ lay kii nii affaire mun na la topp ba ngay kii nii yaa ma gën xam yow yaa ma yi yaa ma gën xam Balla loolu ma ci dara de Balla <laughs> daal xam ma yàlla moo ah, ma maa ñaan yàlla mu ñëwaat si lamb ji daal yàlla baax na waaw maa ngi koy ñaanal yàlla parce que moom moom xam nga sama combat yee barki seer aw ma jàppale de waaye moom rek moo may jàppale barki seeri naa moo ma sama xam nga di santi sama patron papa Ngandiaye maa ngi koy sant bu baax xam nga moo ma jabaram bi ay borom baax lañu loolu lañ may defaral fii de forêt yeneen saa dama damay jógee entraînement mu ne am demal xam yeneen saa moom chaque de presse moo may jox reer billaay seen émission seeti mbër la woon li ñu mayoon ci waxtu jeex na ba xaabaabal ndax ki ñu invité muy Boy Baldé doomu mbër jàngal bëre di yàgg yàgg na la ñam te la ca maam sëtu koy jël dégg ngeen ko nee na man maay Boy Baldé sëtu Fodé Douce Ba borom photo mi ngi noonu adversaire yi wax nag am na ñoo xam si ni garab làmb garab la ci kaw la ñuy fekkante am na ñoo xam ne war ngeen ko mën a may chance ngeen bëre ndax yéen a mën a mayante xaalis promoteur yi yéen a ngi dégg amateur yi bu dee combat yu jaadu la ngeen mayante ngeen mayante seen biir lan ngay tàggoo loolu mooy tàggoo rek xam nga di sant sama ker maam fii fu ma dëkk kër kër kër Samba Doussou Ba di eh, di sant sama rakk yaay yëpp xam nga di sant sama rakk yaay ji de maa ngi koy sant ñoom Marie xam nga ñoom Awa ñoom Ulay mère Dunkan sama maam ñoom Jéebu xam nga ñoom Ibrahima ñoom xam nga booy boo toogal ci mbugaay tudde tuddee na ma doom maa ngi koy sant bu baax tonnerre maa koy sant bu baax xam nga di ko gërëm sama gaan la barki Seydina di sant waa kër Fodé di sant waa kër sama famille yëpp daal xam nga balde balde yëpp maa ngi leen sant pël yi yëpp maa ngi sant daal waa kër Fodé Doucba waa kër Samba Doucba ba kër Falaye Bale sama kër maam yëpp pig mi yëpp maa ngi leen sant di sant waa Kolda bu baax xam nga di sant waa Kolda bu baax di sant Casamance yëpp maa ngi leen sant daal suba ma limee damay jum ñëpp laay sant di sant waa kilo bu baax daal waaw maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm. maa SBT Média. xam nga di leen xam ba non yéen a ngi si yoon bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla rek xam nga yàlla waa yàlla baax na daal ñu ngi leen ñaanal yàlla rek pour ngeen nekk si kanam daal waaw yàlla baax na daal ñu ngi noonu seen émission seeti mbër la ñu dalaloon ki nga moom moo di Boy nekk écurie Falaye Baldé nekk champion ngeen bàyyi xel ndax 4 combats 4 victoire te combat yu méttee métti la fi bëri parce que boo xoolee diggante ba Boy Dioum bi mu simee ko ñëpp dañu woon Boy Dioum mooy favori mais gis ngeen mu bëree ba génn si kon mi ngi noonu seen émission seeti mbër beneen invité ak beneen champion den jox dig dajee fii ci SBT abonné leen ngeen bës seen ko defee benn vidéo du leen raw aca SBT ca